complexe universitaire Cheikh Ahmadou Khadim ngir jàngale ak tàggat te mu nekk fii ci Touba mu di université boo xam ni ñu ngi ko taxawalee ci pas-pasu murid yi xalifa général des mourides ca bopp ba mu ngi waaj a ubbi ay buntam ngir door njàngale mi ci waxtu wu njëkk nag dana dalal junni ak ñeenti téeméeri étudiant bu lépp àggee nag étudiants yi fiy jàngee seen lim mën naa àgg ci fukki junni mu nekk nag ab jàppandal gu rëy ci njàng ak jàngale ci dëkk bu sell bii di Touba nga xam ni dëkkub xam la kem ni ko boroomam sàkkoo woon dafa nekk modèle éducatif boo xam ne dañ koo basé ci njàngaleem sëriñ bi nga xam ne tey ñi ngi liggéey ci réforme ay curricula mooy ay programme yi nga xam ne euh, tàmbulee élémentaire moyen secondaire yoo xam ne dañ koy gën a càmbar gën koo dëppaleeg njàngaleem sëriñ bi gën koo dëppaleek barab bi waaye ba noppi yokk ci li nga xam ne moo ci mën a yokk ba njàng mi gën a am qualité loolu kon rek impact bi ak jeexee di dana tàmbulee foofu ndax yooyu buñ noppee jànguwaay yi ci dëkk bi yëpp dañ ci mën a jariñoo complexe universitaire bi liggéey nañ ko noo xamante ni si dana mën a jël lu bari ci ay dongo yoo xam ni dinañ bàyyi ko fii ci dëkk bu sell bii di Touba. mënaguñoo wax ne bu ubbee lépp képp ko am bachelier ci dëkk bi danga nga fa mën a jàng waaye jàpp naa ne dina dina dana ci jël lu baree baree bari ca it buy màgg mën naa dem ba sax weesu dëkk bi am ñuy jóge feneen di ñëw di ci jàng si ndax euh, sëriñ bi bu dee euh, liggéey lu toll nii da koy liggéeyal ngir mën nga ne Sénégal gépp mën nga ne doomu aadama yëpp man jàpp nañ ne ci sous région bi sax mën naa am ñu fa jóge ñoo xam dina ñëw di jàng waaye dana woyefal bu baax a baax coono yi nga xam ne ñi daan am baccalauréat ca nekk ci dëkk bi daan nañ ko am ngir wéyal seenu njàng ndax ku fi mos am bac boo bëggee wéyal sam njàng faw nga génn. bu weesoo sax foofu université Cheikh Ahmadou Khadim dana dugal loxoom ci liy jàppandal njàng mu kawe mi fii ci réewum Sénégal. université bi dafay respecter norme standard yi nga xam ne mooy dox ci université Sénégal yëpp ak université adduna bi ndax système LMD ci lay doxe mooy licence master doctorat kon képp koo xam ne am nga sa bac ah, mën ngaa ñëw mën ngaa ñëw inscrire euh, def sa licence def sa euh, master def sa doctorat ci euh, conditions yi nga xam ne ñi ngi koy tëral nga mën cee jàll jëm dëppoog jëm fekk mu méngoog nag capacité d'accueil bi nga xam ne université bi am na ko naka noonee université bi dana bëgg bokk ci li nga xamante ni si dana wàññi jafe-jafe yi nga xam ni nguur gi amoon na ko ngir njàng mu kawe mi mën a jàppandi fépp ci biir réew